c'est savoir tricher Qui résultat boo xam ne wóor na la ni moomuloo ko nga nga nga def en sorte ba perturber waay. mais man gis naa Bayern Munich effectivement jouer ben équipe war ko match de 7 minutes doon nañ ko 2 heures buñ Champions League la woon boo dugalee troisième bit mu toog mais match bobu 7 minutes yi da jéewuñ ci dara. moy li ngay wax. waaw waaw xasaw la match bi rek. Ah, ah, ñun ñun dañu dese mom la wax mais il euh, y a quelqu'un qui dit attention équipe du Sénégal bi euh, groupe bi yop ñi am nañu 2 CAN ñi am nañu 3 CAN. Mm-hmm. ñi am nañu deux cas ni amnañ nañu trois cas te nag. Mm-hmm. ça sert à quelque chose fait effectivement effectivement. ça sort à quelque chose. mais yow souvent laay dama lay dégg ci boy tag équipe nationale surtout cette nouvelle génération da ngay wax souvent lu bari ci am di fay qu'est-ce qu'il a ci li tax yow mi nga xamné ne nga seetaan football Sénégal trop qu'est-ce qu'il a mom lu nekk ci moom. gis nga am di. Mm-hmm. Euh, euh, j'ai dit à haute et intelligible voix am di fay. génération 2002 mo ci gënoon complet c'était mm-hmm. le eh, dafa doon niru décathlonien. waaw c'est-à-dire décathlonien mooy bu ñuy def 100 mètres bu ñëw. bu ñuy def 200 mu ñuy ñëw mu ñëw bu ñuy def javelot mu ñëw. bu ñuy def poids mu ñëw bu ñuy def bicyclette mu ñëw bu ñuy def natation mu ñëw yaa ngi gis épreuve athlétique boobu. effectivement effectivement. mooy am di mais euh, euh, euh, kii Alsane am di suñu match ak Tunisie à Kay en 2002 moo def libéro. ah bon xaw ma loolu. libéraux gis Bruno Metsu dafa noppal presque équipe bi. Mhm. ak ngay def libéraux. Mhm. di fay moo def libéraux. c'est vrai que damay damay seetaan récemment ay vidéo am et je vois que moom mi ci boppam maanaam football bu bees nit ñi football ñu naan le meilleur football moderne bi sax da koy football. mais ni c'est le plus complet du groupe am di foo ñàkk nit rek mën na fa dem. Euh, euh, keroog bi bi Pape Thiaw euh, duggee ak moom ñu remplacer Salif Diao ak Fadiga contre contre, contre Suède en demi-finale, tu as vu le match. Manager je retiens de son tir du pied gauche vers la fin du match. Vers la fin du match, tire 25 mètres du pied gauche. Okay. Vers la fin du match, tire 25 mètres du pied gauche. Et eh, ça a été son meilleur match avec le Sénégal contre la Suède. tir je sais que le fait en début de partie. Je d'accord. Wow. Parce qu'Alassane, tir que je def en début de partie, ou je tir que je def dans les 15 dernières minutes. Louer, louer. Wow, il y a un footballeur. Je sais que en début de partie bu desee 15 minutes xëy na mënatoo ko. doo ko mënati waay waay. ak kii contre Suède boo amee résumé Sénégal Suède c'est est le tir de Amdi du pied gauche 25 mètres vers la fin du match. effectivement. il est très complet il est très très complet. loolu ma ci jaaxal parce que dama lay dégg souvent nga wax génération yi yàgg yi di wax ay ñoom Matar ñaa léeg nga def sa classement dugal ci Amdi fay rek ci génération bu bees bi. si Amdi Amdi mën na dugg ci lu nekk Amdi fay mën na dugg ci lu nekk parce que athlète la gisoo soo gisee bindam sax muy dox nga eh, effectivement wax nga lu wér wax nga lu wér. am di soo ko xoolee muy dox rek ni mu équilibré ci kaw ba ci tank yi ci suuf nga xam athlète la. effectivement effectivement je faut jouer n'importe effectivement effectivement man man dama ko toylo parce que fay rappeler époque joueur athlète. Hum, hum, hum, waaw parce que joueur athlète yooyu je rappelle que Ngom Germain Libéro était champion du Sénégal de natation. Ngom Germain. Lamine Diack bi mu def milieu terrain fu ay France Sénégal booba mon champion de France du saut en longueur. ah oui. <laughs> champion de France du saut mais moi j'ai une photo Lamine Diack équipe nationale 61 ici à Ibomar nous jouons avec Allemand, Allemands qui la blessé ba le jeu d'Abidjan. il était champion de France du football militaire pour foyer France Sénégal avec l'équipe nationale Sénégal Gagnons contre tax genou demul au jeu d'Abidjan de 61 bi ñuy waxtaanee. ndeysaan caay. athlète la woon. loolu day yomb ah, ah oui ah oui ah oui. c'est oui c'est c'est tey tey tey tey Alba Nigéria. Ah. taw bi wu euh, Idrissa Gana xamuloo ko. non yorewuma temps bi bu ma desoon tuuti mën naa la ko jox mais yorewuma temps bi. bu dee bu dee fin de partie mu gën a ti baax. Alassane waaw mu gën a ti baax mu gën a ti baax waaw. Alassane bu dee bu fekkee ni bii wu fin de la partie la. Mhm, mhm. ci la gën a baax parce que dafay bii wu fin de partie ci 1-0 dafay tegtal un match complet. effectivement effectivement parce que xam nga mën nga dugal en début de partie te làqu ko. surtout que daf leen départager dans le match bi ñu à Londres c'était 0-0. c'était 0-0 et là quand on sait que le Nigeria a une très belle équipe le Nigeria a ngi Maroc affaire am une très belle équipe. ah euh, Nigeria, ñu équipe duñ ko c'est sûr la deuxième grande puissance africaine définitivement ah, définitivement ah définitivement ah définitivement